ngeen ne lan ñu ne Mame Boye Diao dafa déclaré candidature ñu dàq ko ma ne moytu leen genre genre genre sëlëm yooyu Macky dafa créer ay candidats pour en cas de deuxième tour gis nga Mame Boye Diao Pape Mame Boye bu amee parrainage ah dego ben wa APR ben wa Benno bok yakar bu ko saga ah dego ñu woko dik dego ñu envoyer ko Cour des comptes mu yewu suba ter rek am parrainage ñëw bok ci election bi ma la ne bo bo gisee loolu xamal ni candidature dil la xam nga lutax ñom dañ ko siqul ak un sportif Macky sàll teg candidat am bëgg koo gañe nga ne ko noonoo duma ko nangu te yow nga def fii li nga fi war a def gérer fi li nga fi war a gérer Macky Sall xam ko nga xam ko <laughs> déggoo ma de déggoo ma de Mame Boye balaa muy nekk dem CDC lan la yoroon impôt et domaine ah après ñu jox ko CDC ah Macky Sall yow fi tëj Khalifa Sall yow fi Karim Wade yow fi tëj sunk ngeen yaakaar ni euh, Mame booy Diaw dina ñëw rek nekk candidat noonu rek kenn du ko inquiété kenn du ko saaga kenn du ko dara ah mu dajale ay kopparam dem campagne ken audité wu ko ken defu ko dara mu ñëw jall parrainage xola na leen leer ni Macky Sall wax na ci kaw ni bayina na mais Macky Sall bayiwul Macky Sall limu soxla moy fexé def le tout pour Amadou Ba nekkat président effacer affaire yi mais yéen yéen xanaa sénégalais yéen muus ngeen mais pouvoir bi su tombee si yenn loxo yi mais Macky Sall sax rëccul mais votel Amadou Ba mooy lan mooy li fi mos a am yëpp si douze ans yëpp nañ ko effacé votel amadou ba moy andi amnistie pour tous les crimes yi ñu commettre sous le régime de Macky Sall kan mo koy top mais Pape muus kan amadou ba moy amadou ba moy ñew mu ne yeen wa affaire yi li ngeen fi saccion ka leen ñu xol ko audit amadou ba mo koy def xam nga du ko def amadou ba bés bu ñu ko votelee mooy lépp cool fine nice nañ kon ne jëm deux mille trente cinq waaw ah, ñun si diggante bi si diggante bi waaye lu nga may tegal photo photo Amadou Ba yow wala ngay illustrer rek non bu ma tegalaat fii photo Amadou Ba waaw bu ma tegal photo yow wane ma moo gën ngay wane Amadou Ba parce mii. limu limu limu amel sénégalais yi d'abord moy wax ñu alalam fu mu ko jëlé na ah, yo fek wo fi 2 millions par mois téw nénañ yow milliardaire nga lañ bëgg wax mu wax ñu suñu milliard yoy fan la ko jëlé xam nga déjà da nga bok ci ben koor bo xamni muy impôt et domaine ñu né inspecteur impôt et domaine yi ay sacc lañ lolu lolu ci conscience au sénégal conscience au sénégal yépp dañu japp ni inspecteur des impôts su la mayul deug deug deug deug deug martaba yow sàcc ngay nek déggoo ma di yow ñu lay tudal ay milliards xana bala ngay nek candidat jakarlok sénégalais yow di ñu wax yow sa fortune fu mu tollu ñaata la ak fa nga ko jëlé loolu gënul wóor yow ah Mame Boye Diao nu de des impôts ah Mame Boye Diao fi woon direction des domaines impôts et domaines yorewu fi CDC moom tamit il est de milliards waaw maam booy da ñëw nga wax ñu yow li nga dépensé démb ci presse bi yëpp fan nga ko jëlee en tant que simple fonctionnaire mais est-ce xam nga ni le Sénégal et un pays particulier ah waaw ma ne mais jënd na ay jënd na ay plage ah mane ne pap maam booy jaw jënd na ay heure ci yenn chaîne yi ñu tegal ko conférence de presse bi yëpp fan la ko jëlee yow xam nga luy fonctionnaire maam booy jaw mosul nekk ministre de te même ministre ministre buy maye million sàcc nga déggoo ma de ndax même ministre ah bu dee si salaire rek la yem mun tam may ay millions asantuma fonctionnaire wala directeur mënut ta ne le Sénégal est un pays particulier fii rek ngay gis fonctionnaire yi ñoo ëpp xaalis commerçant wala kuy liggéey liggéey ci privé secteur privé kookoo mun nekk milliardaire. Mais fonctionnaire, nous sommes milliardaire. Fonctionnaire, nous milliardaires milliardaire. Fonctionnaire, vous avez ce salaire là. Le Sénégal, c'est le milliardaires Le Sénégal, fonctionnaire, sont milliardaire. Même si vous avez 20 ans au pouvoir, nek 20 ans ministre, et quel est 20 ans ministre? Nous avons un milliard. je suis formel ndax dama fréquenté man ay ministre ak ay ancien ministre xam naa lu ñu mun am ak lu ñu mënul am